salaamualeykum wa rahmatullah mbokki jullit yi man la Moustapha Samb maa leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaara ñu ñëw rekk di ndokkeel suñu wayjur suñu sëriñ sëriñ Babacar Si Mouhamadul Mansour al Khalifa ci gàmmu gi ñu génn di rafetlu ay kàddoom yi nga xam ne yëkkati na ko jëmale ko ci jullit yépp waaye di rafetlu tamit position bi nga xamante ni jël na ko ci lii nga xamante ni teg nañ ko ci deru sallallahu alayhi wa di ko ñaanal yàlla yàlla ko yàgg taxawe di ñëw rekk tamit di seedeel ak mbaax ak yiw ak tedd nga di ko jëmale ci moom ndax kenn réerewul mbir ni 1957 ci la wuy juram Cheikh El Hadj Mouhamadul Mansour wuy ju woon boroomam booba ba léegi kenn masul la dégg xalifa sëriñ Mouhamadul Mansour ca moom benn doom bu góor rekk la waaye ànd ak loolu lépp mu gas ba mu xóot mu maasalee jël tànkam teg ca topp ci ay ginnaaw yi woy juróom di leen topp ànd ak ñoom ba ñoom ñépp ñu wuy ji seen boroom ay magam des fi mu topp ci seen ginnaaw ànd ak ñoom ànd gu dëgg ànd gu sincère ba ci Cheikh Hadji Abdoul Aziz Al Amin ñi nga xamante ni moo fi mujjee jóge mu ànd ak moom jàppale ko ci biir jàppale ko ci biti wéttali ko def ko mag def ko kilifa def ko sëriñ ba yàlla dogal tey jii mu toog ci boppu kër maamam Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala boole njabootu maamam gépp ñépp képp koo xamante si ni Seydi Hadji jaboote na la ci góor ak ci jigéen mu fexe ba boole leen jël buum teg ci baatam jox leen ñi leen yéene samay sëriñ du def lu mu diisoowul ak ñoom du wax lu mu diisoowul ak ñoom ñoom ñépp nag kon simaari gàcce nga alaama yal na la yàlla fay yal na yàlla dollee dëgëral sa taxawaay yal na la yàlla dollee sàmm nii nga mel nii rekk ni nga war a mel ndax kuy sa maam du sekk bun maxdaat kuy sa bàyyi ci alxaaji Mouhamadul Mansour kuy sa maam Seydi alxaaji Malik Si radiallahu taala anhu fi nga teg sa tànk rek fi nga ko war a teg yal la yàlla fay ñun de ñun ñëpp àndoon nañu booloo jël suñuy roox ak suñuy xol takk ci benn buum teg ci sa loxo inchaa allahu rabbi nga di ñu ko wommatal di ñu ko tàggatal ba ñu dajee ji ëllëg ba ñu teeree ji ëllëg te suñu kanam borom subhaanahu wa taala yàlla na yeex waaye jamono neexu la waxe ñun fas ñoo yéene yëkkati benn kàddu bu safaanu di ko teg ci njabootu maam Seydi Xaaji Malick si ndax xorma ndax Seydi Xaaji Malick rek lañ bëgg moom rek lañu gëm waaye ñu ngi lay seedeel ni la ñu ngi ci sa ginnaaw tey ba ëllëg ku baax nga ku yiw nga ku fegu nga ku yaatu nga ku mën a yaatal nga lépp lu bokk ci njaboot gi fexe nga ba mu yëg ni ci kër Seydi Hadji Malick la bokk kon si Malick yal na la yàlla fay yal na yàlla yàggal sa taxawaay naal bu rëy bii nga nga dekkalaat suñ borom subhanahu wa jaarale woon ko ci maam Seydi Xaaji Malick mu jaar ci Cheikh Alxaaji Abdou Aziz mu am 40 ans nga yëkkati waat fas ko yéene yeggale yàlla na yépp yegg ci sa wax dëgg yàlla amuñu sa fay ndax bu nagani si fekkoon nga teg sa tànk fi nga ko warul a teg danañu jaaxle ñun ñëpp ci duñu xam lu ñuy def kon nag alhamdulilahi rabbil alamin bi nga xamante ne xam nga sa bopp xam fi nga bokk xam li la war nga teg sa teg ci sa tànk boddiwoo kenn sànniwoo kenn toroxaloo kenn lu bon fekkewuloo ko lu ñaaw fekkewuloo ko lu ñagas fekkewuloo ko lu salte fekkewuloo ko kon lépp lu ñu mën a dégg ci safaan mu jëm si ci yow dañuy xam ni rek nattu la boo xamante ni suñ borom subhanahu wa taala moo koy indi ci yow di seet ba xam nag ndax li nga doon mate ko ko wala matewuloo ko ci ñun wóor nañu ni wóor yàlla ni ëppale nga sa bopp loolu waaye nag lii ndono la lu jóge ca maam Cheikh Alxaaji Mahamadul Mansour ndax ku dégg démb dégg tey daa xam ni nii nga def rek la war a def ndax nii la sa wéyjur daan def jërëjëf si yàlla la yàlla fay yal na la yàlla taxawu yal yàlla guddal sa fan na la yàlla dollee barke yàlla mi am kàttan yal na la kàttanal yal na la yàlla taxawu yàlla nga suut sa baay yépp aw fan ci barke xam Muhammad te dese barke ba la mag ña waroon a dund lépp yal na ko yàlla mottali dajale ko teg ko ci sa loxo nga yàgg ñoo gunge yàgg ñoo jiite ñu yàgg topp ci sa ginnaaw insha allahu rabbi jërëjëf si Malick yal na la yàlla fay wallahi lu Seydi Xaaji Malick jaboote seeni waajur dem bàyyi leen fi ak yow rëccu ñu loo fi doon dese ak ñoom ku ci nekk taxawu nga ko ku ci nekk jàppale nga ko ku ci nekk ànd nga ak moom ci sincérité ak ngor yaatal ba ñëpp xam ne yaatu na te boole woo ko wax boole woo ko ngistal ana la yàlla fay si Malick jërëjëf